ci turu bee Camara gambien bi mu dig pièces yooyu nag mu ngi wuyoo ci turu ASEC sa waay daal nee ba mu diggee gambien bi papier yooyu gambien bi dafa bég ba yaakaar ne dundam tekki na daal di woo yaayam naka noonu yaayam envoyé ko vingt mille francs sa koy jox docker bi docker bi ne ko dolliwaat ma sa waay dem di takkale di takkale dolli ko ba mu mat trente cinq mille francs docker bi nag ba mu jotee ci trente cinq mille bi ca la a wax lu ci jëm saa ko gambien bi laajee docker bi di ko lakk ay daada ba mu def ay weer ci la docker bi mujjee porte plainte ci la gambien bi mujjee porte plainte ba ñu mujjee teg docker bi loxo docker bi nag biñ ko tegee loxo yóbbu ko di ko enquête moom nangu na lépp li ko gambien bi tuumal fi mu ne kay li muy laaj mooy na ko yoon jéggal waaye ak jéggalam yooyu yépp mujj nañ ko garda ba noppi ñu defeere ko parquet waaye ma ne loo moomul ba ko fa laa wax mun a trop moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax m gajaga mi nag li mu def romb na doy waar moom daal ngir dagaan cofeelu benn xale bu jigéen dafa tax mu def li tubaab di tuddee usurpation de fonction mu boone police la nga ni ma ne mbir moomu mu ngi xewee ca commissariat bu Médina ndaw si ñëwoon fa di déposer plainte gannaaw bu mu déposer plainte am bay ci la dajeek m gajaga hem gajaga commencé ko dragué di ut bunt ne ko yow moom maasàllaa moytul xeesal ma ne xam naa ñu laay ndaw see ko daane waaye ak yooyoom yépp ndaw si ubbiwul bunt li xale yi di wax fattal ma foofu hem gajaga bi mu jaaree foofu doxul ci la ubbee beneen buntu dal di xoggaliku ne xale bi sama oto dama koo gaare ci commissariat bi ndax sama bureau fa nekk ëw lëw te sa dëgër fiit loolu yépp bi mu koy def ci buntu commissariat bi la ko doon defee naka noonu fekk benn policier mu ngi ci wet ga di leen bàyyi xel policier boobu moo mujj interpeller ndaw si laaj ko lu ko waa doon wax ndaw si expliquer ko lépp ndekete yoo em gajaga ab commerçant la bu doon jaayee ci wetu police bi noonu la ñu ko arrêté di ko toppee usurpation de fonction ba M Gadiaga ci boppam mujj nañ ko àttee ba daan ko ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd waay way bàyyi leen wane noo leen melul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax commerçant bi nag li ko dal romb na doy war moom daal benn étudiant la xamante loon ci biir place am ndax étudiant bi dafa ñëwoon di jënd naka noonu ci la ko dragué étudiant bi dal di koy tegtal fi mu dëkk sang bi dal di fay dem waxtaan ak moom ba ñoom ñaar ñuy génn waa ji dem na ba génn bi muy génn ketti jant bi xamante na ci ak ay way juru étudiant bi waa ji saa bu ci kër gi way juru étudiant bee koy dalal sa di def ci moom lu ne feet bu ñëw mu xottil ko ndekki reer ak paasu étudiant bi lépp sa ko gàddu woon sawaay waay ay yére la doon jaay <laughs> ma ne ko sa palaas bi dina daanu de waa ji nag li mu seetlu mooy saa bu waxtaanee ak étudiant bi ay waxu takk étudiant bi du ci sawar danaan ko xaaral bés nag waa ne ko man ay tànku ca caaxaan taxumaa jóg danaa waxtaan ak say waayjur waa bi mu demee di waxtaan ak waayjur yi étudiant bi ci la ko waayjur yi xamalee ne étudiant bi dafa wax ak benn doomu dija étudiant bi dafa wax ak benn doomu nijaayam ñu nas ci wàllu say ba fi mu ne waa ji bàyyi na fi kàddoom ma nga ca bitim réew waa ji ci saa si mel ni ku ñu xëpp essence <laughs> ma ne wonen ngeen ko ko teel a wax nag waa bi mu ñëwee ceeti jant bi di ko laaj ni mbir mi demee ndaw si daal di toqali bët di jooy ne ko li la samay wayjur wax dëgg la <laughs> ma ne ko nag vraiment yomb la di génn ak nit mu lay defal lu ne fekk yaa ngi signé pacte ak keneen koo war a sëyal jigéen ñi bàyyi leen soos fii soos fee koo leen bëggul bàyyi leen poosam bàyyi leen poosu nit ñi mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz